wa sallallahu wa sallama ala almabuusi rahmatan lil aalamin sayyidina muhammadin alfatixi alxaatim wa ala aalihi wa asxaabihi wa taabiciina lahum bilhuda ila yawmi ddin ورضي الله عن شيخنا سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين أصحاب السماحة والسيادة ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الأيام wa naxnu amaamakum lil wuquufi mumathilan al xalifa al aam Cheikh Mouhamadul Mansour amidul usra al malikiya al siddiqiya al tiwaawuniya wa kaafat أبناء هذه الأسرة لأشكر على هذا الملتقى الذي قام به دائرة الأصفياء لأشكر routière wa nuxayikum bismihi wa bismi kaafat al usra qaa'iliina lakum salaamun min allahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu mu ngi rekk yokk sunu kàddu ci kàddu sunu sëriñ almahbub inda allah muhammadul habib di ko nuyu waaye nu yëkkati nuyoo ziyaara feeñal orma di ko jaarale ci sunu ñaari wayjur yii tabaarakallahu teew fi kii di al imaam alxaaj Mouhamadul Mansour Diop kii di alxaaji Dut sal di sunu jaam di sunu soppe ñoom ñépp nag ànd ak sunu doomu baay bii di sunu baay di sëriñ Abdul Aziz si teewal fi wayjur wi fi teew te newu fi di baay siidi Ahmed si ayyadahu llahu wa nasara ziyaar ko massawu ndokkel ko jéggalu ko ci bés bi ak ni mu demee yéenéem bokkoon ci ñëw teewandoo ak nun waaye xam nañ li ci moom ndax ku ko xam xam ni mook nun la woon ca njëlbeen ak léegi amul benn at bu ñu romb yëkkati bis bi te du ànd ak nun accompagner ci ay ñaanam gannaaw ndigalam wëlbatiku boole nu nag nun ndaw yi nu àndandoo ci nii ci fii nga xamante ni mooy Tiwaawan ci Ndakaaru di barab bu symbolique di xadara cheikh seydi aboubacar si nu nuyu ko nuyu wayjur yi feeñal seen orma jéggalu ko bég loolu itam ni mu doxale ndax boroom ku ñuy diri du taamu fu ndogam di aw te ñoom ñooy sunuy kilifa fu nu jaarale rekk foofa gën bi nu ñëwee léegi la wax ni alxaaji du sal ah man de xam ngeen ni wéruma nu nangul ko bu wér ni kon nag li ngeen di def mooy da ngeen may teewal ca barab ba su ngeen teewee teewal ma man ma mën a noppalu ma ni ko ànd nañ ci wér yaakaar naa ni ñu fi teew ñëpp nangu nañ ko kon ñu ngi ñaan yal na yàlla gën a yokk wéram yàlla taas ci barke barke ay wayjuram barke ay maamam ah tabarakallahu bis bi nag du nu bëri commentaire lu dul xanaa doyloo kàddu yi joto jib sunu sëriñ bi rotal ko di cheikh Mouhamadul Habib te bu nu ko doyloo woon rekk doy na sëkk ci sëriñ Babacar si ndax dund bu jàll ba juróom benn fukk ak lu topp ku ko bëgg a nettali ci benn ngontu mënul nekk kon da ngay def rekk jël ca tuuti fàttaliku parce que fàttaliku bi ñuy fàttaliku dund ci dund mag ñi yërmande la nuy feeñalal te dana nu may nu defaat revisite revisité dundam revisité jaar-jaaram revisité melokaanam yu tedd yu sellam ya jëfandikoom ba révisité li nga xamante ni moom la nu bàyyil muy héritage nekk itam ci nun viatique viatique boo xamante ni fi sëriñ bi daaneele tudd na ko léegi jamono ji ak nu mu mel li mu feeñal ci ay melokaan melokaan yu jéggi dayo melokaan bu jaarul yoon jikko yu xaw a ñàkk teggin tubaab di ko tudde amoralité jamono su demee ba mel noonu am mag mooy jële ci moom dana la may nga am làmp bu leer bu lay niital tax ñoom ñi taamu woon ni bu nu dikkee nañu melal sëriñ Babacar Sy lenn ci ay meloom ak dundam waaye nekk gi mu nekk viatique pour une jeunesse en de repère dana mën a doy ñu jël ko teg ko moom ci boppam mu nekk sunu nattuwaay lu tax parce que ku doy nattuwaay da ngay mën di jariñ ak ginde te dafa am kenn ci nasaraan yi dafa wax ci wàllam sëriñ Habib tudd na ko léegi mu di Vincent Auriol Daphné Ababakar a été, dès les premiers stades de la maturité, un homme dont les qualités servaient déjà de moralité du point de vue sagesse. Sëriñ Babacar Sy dafa juddu rekk doy koo xamante ni danga juddu rekk mat li nga doon danga doy pour ñu jële ci yow moo tax ñu ni kon nag danañ ko mën a jël comme exemple pour fàttalentewaat ko fàttalentewaat lenn ci ay jaar-jaaram fàttalente fàttalentewaat lenn ci dundam waaye balaa booba ñu dugg rekk ci wàll woo xamante ni dañ koy def pour introduire tuuti ci dund mag ñi ak li nga xamante ni moom lañu ñu tuddee al wilaayatu parce que yàlla dafa bind cër cër ba mu taamu ay jëmm jëmm ya mu nattu seen melo ba gis ci ñoom jëmm yooyu ak mat gu doy sëriñ Habib mën na yàlla ci tëralinam dafa bind cër cër ba mu xeemeem ay jëmm jëmm ya mu nattu seen melo ba ñu mel na ko neex mu teg leen ci biir melokaan ya mu doy ko lool mu jox leen cër ba bind ca kuréel bu yaatu tudd leen ñu natt ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett yoo xamante ni mu ngi jël cëru nubuwa jox leen ñu di ay anbiyaau wa rusul ñooña mu génnewaat ca beneen catégorie catégorie ba mu ca génne juróom lañu juróom yooyu itam dafa dem nee na ñeent yooyu juróom yooyu mu tudd mu nga ca tudd ku ñuy wax Ibrahim aleyhi mu nga ca tudd ku ñuy wax Seydina Nuux aleyhi mu nga ca tudd ku ñuy wax Seydina Muusa aleyhi salaam mu nga ca tudd ku ñuy wax Seydina Isa alayhi salaam mu nga ca tudd ku ñuy wax Seydina Muhammad salawatullahi alayhim ñoom ñëpp mu boole leen taamu ci ñoom nag yabal leen ci pénc yoo xamante ni dañu soxlawoo dégg kàddoom ngir dégg ga ñu koy dégg ñu defaroo ca mu jël leen def leen ñuy ay anbiyaawu waaye ñoom ñii nag seenu mat tax ñu nekk juróom yoo xamante ni ñoom dañuy yenu risaala nee ci bii cër nag la indee cër bu ñuy wax wilaaya mu di ñaareel boo xamante ni ba mu demee ba Muhammad ñëw mu tëj ràng ga dafa wutaat ñeneen ñoo xamante ni mënul ñàkk ñu jotalal ko gannaaw kuréel bii ma jot a tudd mu taamu ca ñu ñëw wilaaya yi ñëw moo tax ñuy wax ni wilaaya ñaar la dafa am wilaaya al amma ak wilaaya al xaasa ni cër bi dafa séddaliku ci ñaar bii moom lañu tudde bu général bii moom la ñu tudde bu particulier bu général bi nga xamante ni dañu ko boole ak ñépp wax nañ ni boobu ñu ngi ko am ñu ñu ko jagleel bu xaas bi nga xamante ni mooy bu particulier bi nee na dafa am moom it ñu nu ko jagleel nee na bu dee bu xaas nee mu ngi tàmmalee ci aadama alayhi salaam di dox ba yegsi ci góor gu ñuy wax isa alayhi salaam nee na mu jóge fa indi ci ruux am nee na bu am bi mu ngi tàmbalee ci seyduna muhammad alayhi salaam ne ñëw ba ci maam boo xamante ni nun ñëpp sunu maam la ñu di ko wax seydi ahmad dab na muhammad dab na salima nafaana allahu bi barakati mu di Seydina Cheikh ñu ni boobu wila Muhammad ñëw ci Cheikh moo tax sunu sëriñ moom ci boppam waxal boppam ni évolution wu xeetu Seydina Muhammad neena soo koy melal dañu koy melale naka nawet nawet dañu wax ni kenn xamul taw yu njëkk ya ak taw yu mujj ya ana ban moo ci saxal pepp bi nga xamante ni moom nga fas yéene ji pepp yu njëkk ya ak pepp yu mujj yi maanaam taw yu njëkk ya ak taw yu mujj yi bu nawet ñëwee taw néew ca njëlbeenam bu ñu demee ba ca mujj ga daañu gis ni néew néew bu njëkk gi tax na nawet bi du jag walla du jagal sunu jiw bu nawet ñëwee ñu njëlbeenoo ko taw dem ba ca mujj ga taw yi néew bu ñu demee ba góob boo moytul daañuy yëg lu mu wàññi pepp mi ñu dugaloon ci biir suuf mu ni kon nag su ñëwandoo ñu ni nawet neex na war nañoo mën a ànd mànkoo sunu sëriñ ko wax de waxuma ko war nañoo mën a ànd mànkoo ni kon nawet njëlbeenam ak mujjëm bu àndee jag li nga dugal ci suuf dana jag waaye bu ca feeñal néewal rekk mu feeñ ca mu ni évolution wu communauté Seyduna Muhammad nee na noonu la mel doo xam ndax taw yu njëkk ya ak taw yu mujj ya ana ban moo ci ñoral kon nag taw yu njëkk yeeg taw yu mujj yi bu ci ne am na solo na Cheikh wax ni kon nag ci biir cër yooyu am na ca kuréel bu ca génn kuréel bu njëkk boo xamante ni ñeent fukki mag ñoo ko composé ñu tudde leen ay nujabaaw ñu ni ñeen fukki awliyaa lañu yoo xamante ni yàlla may na leen mbaax goo xamante ni tartaru jamono ak metit mettit yi askan yi di dund nit ñi di ko dund ñoom ñooñu seen benn allahuma mën naa tax mën naa tax seen àdduna xëy-xëy yéwén mu ni am na ca beneen kuréel boo xamante ni ñu ngi leen tudde ay nuqabaa jóge ci baat bu ñuy wax naqib mu ni baat bi ñetti téeméeri nit yàlla ñoo ko composé ñetti téeméer yooyu ñoom ñépp yàlla may na leen mbaax goo xamante ni ci seen may mën nañ ca dëgg nit xalaat la mu xalaat ci xelam ñu xëy mën koo nettali te fekke fa mu ko xalaate nee na am na ca beneen kuréel boo xamante ni ñeent fukki mag yàlla lañ yoo xamante ni ñoom ñooñu tànn na ci ñett ñu tudde leen ay ab abdal jóge ci baat bu ñuy wax badal boo demee du sàll xam naa moo ma koy gën a xam yenn saay nga dem tribunal ñu ni substitut du procureur le substitut du procureur lay njëriñam moom lay bàyyi moom dana ma ko mën a faram fàcceel ndax c'est un de droit waaye ñoom ñooñu wax nañ ni ñetti ñett lañu ci jël yoo xamante ni ñu ngi leen di tudde ñett ñi nga xamante ni dañ leen a tànn ngir tànn ga ñu leen tànn seenug sellte moo tax ñu tànn leen ñu tudde leen ay awtaat jóge ci baat bu ñuy wax watat ngir sell ga ñu sell ak melokaan ba ci ñoom nee ñoom ñooñu nag neena na ba mu ca jógee am na kuréel bu ñu ca tànn ñeenti nitu yàlla ñoo ko composé ñoom ñeent ñooñu ñu tudde leen ay aqtab ñoom ñeent ñooñu itam aqtab bu ñu ko tuddee mu ngi jóge ci baat bi ñu wax xutb mooy le pluriel de xutb xamante ni mooy kii fi nekk rek ñeent ñi ñu dénk leen kenn ku ne benn ci point cardinaux yi quatre point cardinaux yi yàlla tudd benn bu ne dana féete foofa mu ni waaye am na ca kenn koo xamante ni moom la ñu teg nga xamante ni ñeent ñi responsabilité yi ñu leen dénk ci ñeenti points cardinaux yi moom moomu bala ñoo dogal mété dañoo ñëw wax ak moom mu dogal ñu doga àndandoo dogalandoo ci kàttan wu leen yàlla dénk ñu tudde leen ñu tudde ko xutbul aqtab ni ñoom ñooñu toujours seen boroom dafa jël noppam jox leen jël bi mu jël noppam jox leen moo indi bu ñu bëggee yàlla bëgg bu ñu lànkee yàlla lànk bu soree ñu ñaan yàlla mu jegeel bu yéexee ñu ñaan yàlla mu gaawal te yàlla lañu leen wax ñoom ñooña dañ koy def ñoom ñooñu itam saa su ne dañu jël seen nopp dénk ko ñi nga xamante ni ñooy jaam yi nga xamante ni ñoom lañ leen booleel mu di juróomi cër yoo xamante ni sunu sëriñ Seydi Cheikh Ahmed Tijani moo nu ko faram fàcceel indil nu ko wax nu ko nit ñu ngi dundandoo ak nit ñi nekk ci biir service ak responsabilité ya leen yàlla teg bu mujj bii ñu ci tudd nag kii nu bëgg a waxtaane ci wàllam mu di cheikh seydi aboubacar si radiallahu anhu mën nañoo wax ni kenn la woon ci ñeent ñii nga xamante ni bu ñu bëggee diisoog moom mu wax leen loolu waxuma ko sëriñ Cheikh Tidiane si moo ko laaj ci alxaaj Abdul Aziz Dabbaax na yàlla yokk leeram mu firi ko wane ni sëriñ Babacar Sy kenn la woon ci ñooñu kon waxtaani mbiram dana yomb dana jafe waxtaane mbiram it dana mën a doy ci tey li nga xamante ni moom lañuy sàkku ci ngëneelu mag ak mbaaxam ñu mën koo am ci góor gu baax googu nga xamante ni ah ñi ko gënoona miin ci waxin moom lañu daan wax maamu xalifa mu ni kon nag daañu rekk xuus tuuti ci dundam mu nekk benn jaar-jaar bu ñuy jaar moom Cheikh Seydi Aboubacar bu gàtt bu nu fa jógee xëy na du ñàkk melal lëf ci qualitéem yooyu nga xamante ni moom lañuy wut ci jamono bii nga xamante ni jamono bu yàqu la lenn lu mënul ñàkk pour ndaw yi fi nekk mën delluwaat revisiter héritage am waaye tam mag ñi delluwaat fàttaliku ko muy wéttal ci ñoom wéttal ci nun nu dugg ca biir xëy na itam du ñàkk ñu waxtaane lëf ci œuvre am muy li nga xamante ni liggéey na ko te mu mën a doy sur le plan social muy daayire yi nga xamante ni ci biir liggéeyam mën nañoo wax ni tey paternité wu création wu daayire ci ëttu diine ci ëttu tariqa ci pencum alaaji Malik fa la ko yàlla dogale ci jëmmam xëy na itam bu yaatoo daañu rekk xëy na duggaale tuuti ci lenn nag ci ay recommandation bu ko defee nu jox mag ñi ñoom ñu mottali li nga xamante ni moo ñëwul ci biir li nu wax rawatina jëm ci ndaw yi nga xamante ni tey mën nañoo wax ni message bi lu mu sori sori lu mu gàtt gàtt lu mu gudd gudd ñoom ñooy ñi ko moom ndax ñoom ñoo di génération Serigne Babacar Sy dafa wax nag ni cheikh seydi aboubacar si qad wulida cheikh seydi aboubacar si am 1882 في مدينة سان لويس من أب اسمه حاج مالك wa ummin ismuha ruqiya njaay wa kaana yaqulu fi xayaatihi innani qad kuntu min ahli ndari wa maskani fiihi la daarin dari nee na Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiallahu anhu ak juddoom ñu ngi ko natt ci atum 1882 boobu mooy at bi nga xamante ni ñu ngi ko jële ci mag mu ñuy wax Sëriñ Saaliwu Saar mu wax ni 1882 la waaye boobu moom mooy bu officieuse bi bu officiel bi nag wax nañ ni 1885 la nee na ci dëkk bu ñuy wax Ndar nee na jóge ci wayjur wu baax woo xamante ni ñu ngi ko tuddee Malick Fawad nee na ci wéy juróom gu jigéen mu di soxna Roqaya Njaay nee ci loolu nag bu fekkee ni wax nañu ko moom ci boppam moo waxal boppam ni man ndar-ndar la ni man kat maa ngi bokk ci waa ndar te ku may jeex ci biir ndar boo demee ba ci rue bu ñuy tuddee rue André Le Bon boo demee fekk ma fa boo demee daa fa gis kër goo xamante ni dañ la naan kii këru sëriñ Babacar Si mu ni kon nag moom ci boppam mu ngi juddoo ndar way juram wa Malick fa wadd moo ko jur ak way juram wu jigéen wa soxna roqee njaay nee na ñoom ñaar ñooñu ñoo ko meññ nee na mu juddoo fa yaroo fa ba mu tàmbalee yaram ñoom ñaar a ko séq ba bi mu bëggee mottali yaram ci njàng mu dugg ci école Malick boobu nga xamante ni kamu ko ca booleel mu di professeur ñu ngi ko tudde maam Malick Sarr mu di Cerno Haj Malick Sarr bële mu ni waaye moom moomu itam yamul rekk ci moom Cerno Malick Sarr mu di sëriñu daaram nee na jàng na alquran wattu ko tàmbalee ko ci moom waaye mottalee ko ci góor gi alxaaji ma xujja si nga xamante ni mook Seydi El Hadj Malick bokkoon ci deret bokk ko ci kollëre ak pas-pas ak cofeel nee na moom moomu moo ko téye ba mu wattu alquran nee na jàng ko jàngin bu wér nee jóge fa nag di sàkku xam-xam ci wàllu daara ak diine nee na jàng xam-xamu luga nee jàng xam-xamu ëdëb te moom la ñuy tuddee lettre littérature littérature arabe jóge fa jàng fiq nee jóge fa jàng balaaxa nee na jóge fa jàng bépp matière boo xamante ni dana mën a may mu am bagage intellectuel yoo xamante ni bagage yu ñu mën a nangu la ci koo xamante ni mën nañ ko tudde intellectuelu diine nee na ba mu fa jógee nag summa rajaa ila walidihi wa huwa fi madinatu Tiwaawan en 1902 foofee ci atum 1902 la delluwaat fekki Seydil Hajj Malik ca Tiwaawan mu àndandoo ak ñoom nag fas moom ak magam di sunu maam maam Seydi Ahmed nee moom Seydil Hajj Malik jëlal leen boppam parce que wóoluwul woon kenn ci seen formation bi ñu tàmmalee di yaatal ci xam-xam nee kon da nga ca dégge ni kon moom moomu di sëriñ Babacar mu ngi yaroo ci ëttu Maodo mu ngi yaroo ci wetu Maodo moom moomu nag yar booba def na ci moom bi mu duggee ci daaraam ja nee na génne na fa nekk boroom xam-xam bu kenn werantewul xam-xamam nee na jóge na fa nekk faqihan nekk kuy ubbee ci diine koo xamante ni ubbeem ci diine masail fiqhiya yi ñu ko daan posé ni mu nekke woon masail yu compliqué mu di ko indi ak pointu gëmu pointu moom Cheikh Seydi Aboubacar Sy nee na ba mujj na ak ubbeem ci diine ci ubbi yi gën a ñaw ci réew mi la bokk nee na mu jàng branche yu xam-xam yépp sëriñ Babacar Sy ci étape boobu la jaar ci wàllu wutam ci daara nekk ci wetu sëriñ Babacar Seydi Haj Malick Alaaji Malick ànd ko ak magam ja Cheikh Seydi Ahmed Sy di leen formel boppam kenn raxu ko ci ñoom ci bi mu jëlee seen mbiru xam-xam nee na formé leen ba ñu nekk ay intellectuel u diine nekk boroomi bagage yu kawe xam lu nekk ci xam-xam ndax moom Maodo encyclopédiste la woon nekk gi mu nekkoon encyclopédiste xamoon na xam-xam yépp mu jël leen li ci moom mu yulli ko ci ñoom nee na ñu doon ay boroomi xam-xam nekk mujtahid nekk ay ñuy tëral tëralin ci atte yu kawe ci diine nee na ci niveau yoo xamante ni niveau yu kawee kawe la nee ci loolu la nekk nekk ca nekk ca ci formation ci wutam ci wàllu daara xam lu nekk Malik Fawad xamal ko ko neena na ba bis bi nga xamante ni xëy na ci dundam mu taamu ni ko daal dootul mën a nekk ñu bokk di euh, euh, féq jataay lu dul xanaa nga taamu dem ci benn dëkk xaar ma fa xaar fa sama ndigal bu ma la soxlaa woola nga ñëw nee na ci la ko sëriñ Babacar si waxe ni ko ndax ma dem Louga ndax ma dem ndar toog fa mu ni ko ndar dafa sori ba mu ëpp ni ko ndax ma dem Louga mu ni ko Louga mag dafa tàmbali liggéeyam te bugguma nga dem fa gêné ko mu ni ko ndax ma ñëw cees mu ni ko Thiès dafa ma jegeñ ba mu ëpp mu ni ko ndax ma dem ndakaaru mu ni ko ndakaaru sama liggéey dafa sotteegul mu ni ko ndax ma dem Louga mu ni ko aha kay Louga baax ah mu ni ko xakkay Rufisque baax nee ci la taamoo moom Seydi Aboubacar Sy toogaayam boobu ci joxeñu baayam bu tedd boobu mu dem toog Rufisque di ko xaar nee itam Rufisque ci wutam ci wàllu yàlla ñu tuddee arbabul futuxaatam fa la ko amee ubbikoom ci yoonu wut bi mu doon wut ci wàllu yàlla ne fala ko amee يعني ايش يفتي لابو بكر؟ toog tëngéej di fa xaar ndigalu Seydil Hajj ne toogaay ba it mayoon na ko yenn saay mu dem dikk dugg ci banlieue wu tëngéej nee na mayoon na ko itam muy dem ci yenn ti dëkk yoo xamante ni li ñu seetlu mooy ay dëkk la yu fare woon ak booru géej am na sax ñu nettali ni demam gore mu ngi ko ame daan fa toog di wéet wéetaay ya mu bëgg ci wutam ci wàllu yàlla ne mu ngi ko ame ci toogaayam tëngéej daan mën di am saa saa mu dem tëngéej jóge fa dem gore toog fa daan am saa mu dugg ci àllu yeen dem fa dellu siwaat daan na am saa mu dugg ci àllu sàngalkam toog fa nee na loolu yépp ci wutam ci wàllu yàlla mag ñi nettali nañ ñi daan na ko faral di def toog nag di déglu ndigalal Seydil Hadj Malick toog nag di liggéey wallu yàllam ba bis bi ko Maodo woowee ca Tiwaawan ni ko na ñëw ne mu jóge Tëngéej dem Tiwaawan toog fa ay fan waxu ko lim koy doye nee ba yére yi mu soloon mujj di eh, bëgg taq mu ne ah naa sàkku nee bu yàkkamtee ba dem fekki way juróom wa Seydi Haj mu ni ko toogal rek toogal pareeguma ci yow nee na ba bis bi mu ko woowee bëccëg booba mu woo ko ni ko man dey doyewuma la woon dara dafa am rekk lu ma nekkoon di ko waajal bëgg koo def te ma bëgg balaa ma koy def sàkku ci yow nga dem sa zawiya maam bële ca ndar nga defar ko ndax sa alal la te nit du bàyyi alalam ni ko boo ko taxawoo ba mu sotti nag diggante bi maa ngi liggéey benn walla ñaari téere yoo xamante ni su ma ko paree su boobaa nag ngeen waajalal ma yóbbal ma bàyyi leen ak seen àdduna ji dem fekk yàlla ne sëriñ Babacar si nangu ndigal la mu boole ko ak sunu maam Cerno Seydou Nour radiallahu anhu ne ñu àndandoo pour fas yéene mottalil Seydil Haj Malik yéene bu mu amoon ca zawiya bële ca Ndar ne toogaayu ndaram pour liggéey mashruu zawiya nekk ca di ko liggéey ba bi zawiya bi yeggee ne ci la dégg ndaw lu ñëw indiwaale leetar sëriñ Moussa ñan bind ko bi xatti yëddihi ne wax ko ni ko foo toll ak sa liggéey man dey pare naa nee na foofa nag ci la xame lu ñëwagul ni mu ngi ñëw ne booba monte buntu zawiya ba moo ko dese woon naka la ko monte ca takkusaanam ne fobu ñëw ci waawan pour wuy si Seydil Hajj Malik ne bi mu ñëwee mu waxtaaneek moom mbir yoo xamante ni na mu ko waxtaaneek moom wan na ko ni gannaawam moom la taamu mu taxawe taxawe ko nee na ca la ko woo nag boole ko ak rakkam yu tedd ya sunu maam cheikh Mouhamadul Mansour radiallahu anhu ne boole ko ak maam Cerno Seydou ba ñu dikkee ca waxtaan wa mu wax leen wax ko la mu ko war a wax la boole seen loxo ya ni leen bu ngeen àndee lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg mën naa ne bu ngeen àndul nag sama yoon newu ci Seydi Hadj Malick dem tàggu ko tàggu leen ñoom ñooña neena jóg nag wuy ji boroomam nee na keroog bi mu yegsee mu wax ak moom am na lu mu ko wax muy ñaari mbir yoo xamante ni moom la ko njëkk tudd moom Seydi Hajj ne daf ko wax bu njëkk bi ni ko Babacar na nga xam ni ku bëgg sàkku lu mënul nekk ku bëgg a sàkku lu mënul a nekk da nga sonn te doo am li nga bëgg ne mu ni ko ku bëgg sàkku sàkk lu mënu la nekk lu mënu la nekk loola lan la nee na mu ni ko mooy noflaay ne foofa ci la xame ni ndeke dundam fu mu ciy noppali ko dootul mën a teene ku bëgg a sàkk lu mënu la nekk man talaba ma ku bëgg a sàkk la nekk sonn te doo jariñ mu ni ko loolu lan la lu mënula nekk loolu lan la maahu mu ni ko araaxa noflay noflay ku ko bëgg a sàkku ne baat bi dafa ñëw waaye maanaa bi ñëwul ba boo tëddoon tey ni damay noppalu ne bu yàggee tuuti danga sonn ci tëraay bi ne ah xaaral ma jóg tuuti ndax sonn naa ci tëraay bi mu ni kon noppaloo ko nee na baat boobu wan na ko ni dundam yépp coono lay doon kon Seydi El Hadj mu ngi ko doon préparé ci yan bi nga xamante ni moom la fas yéene yanu wan na ko ni yan bu diis lay doon ndax ku yanu war a yanu loru njaboot yan bu diis responsabilité bi ci eh, wara taawu yan bi te doo ko yenniku mukk yan bu diis la nee na booba mu ngi koy préparé ci mission mu ni ko ñaareel ba mu ni ko nanga xam ni gannaaw noflaay baat bu ñëw la te mënul nekk nee na na nga ca bàyyiwaale xel ni àdduna dootoo mën a mucc ci nit ñi ku boot bukki xaj dana la baw mu ni ko kon àdduna loo mën a def teewul bàyyil xel nit ñi ndax laa raaxata fi dunia wala najaata min annaas mu ni ko ci ñaar yi ne ci la xame ni ndeke moom Serigne Babacar si il est prédestiné d'une vie boo xamante ni faite de difficultés et d'obstacles ne mu xam ni kon dundam li ci kanam lépp coono lay doon ndax ku nekkal yàlla ci nit ñi naam yàlla dana la nekkal waaye dootul yomb ndax lu dal yàlla dana la dal lu yàlla dana dal lu ñu wax yàlla daañu la ko wax yàlla ngi toog nekk ca la mu nekk ku wut amuloo ni yàlla ma xañ kon boo ko nekkalee ci jaam yi yow ku wut amul yow la naan yaa ko ko xañ lu waay xëccoo la mu xëccoo bu ko jotul ka ko ko xañ kooka la koy teg te fekk na du kooka moo tax dundam Maodo baat yu mujj yi mu jot a waxante ak moom wan na ko ni sa dund ci difficulté moo cay ëpp ci coono nga koy passé kon nag nanga ko waajal te koo xamante ni sa dund yépp xeexu daan coono la ah tàmbali nga sonn ne Seydi Haj Malik la fi jóge muy talaata 27 juin 1922 mardi 27 juin 1922 ci la fi jóge cheikh seydi aboubacar wuutu ko gannaawam wuutu ga mu ko wuutu nag nekk mission bu ca tàmmali mission boobu mu door ko ak mag yi Seydil Hajj Malik bàyyi gannaawam nee itam bi muy door nee na bëri woon na tuuti difficulté pour mu door liggéeyam ndax problème de succession lislaam ku jàng taarix da nga xam ni xaqiqa seyduna muhammad fu mu mës nekk ne la dikkoon ca dundam ak ca yoonam du mën a ñàkk mu dikke ñooñee nga xamante ni ñoo donn yenu xaqiqa ba neena dund na kon coono yooyu ci tàmmalik liggéey ba mu am ñu xaw a ci ndax doy na ci donnu Maodo wala déet mu ni waaye bi mu doxalee tuuti mission ba mag ñépp dem nañu ba xamal seen bopp ni ndeke moom dong moo mënoon a donn Seydil Hajj Malick ci yooyu at ci yooyu jamono nee na mu ñëw tàmbali liggéey ba gannaaw ba mu surmonter difficulté ya daan wax waxam boobu mu daan wax ni ah Sëriñ Habib wax na ko léegi doon na Seydi El Hadj te booba Maodo jógee gu fi mu jóge fi laata mu fi jóge mu confirmer ko ne jóge fi nag yanu yan ba moo tax bi mu demee ci biir coowal xilaafa bi mu tàmbalee jib dafa waxo xam boobu ne ah cër bii de ne bu ma laman fàndeen juróon mu di séeréer bi daan dogale nit ñi ci àllu kañ bu ma juróon teewul teewul ma doon cër bi ñu ne ndax cër ñetti cër la bu njëkk bi mooy bi nga xamante ni ki nga ko séqal moo la koy yéene rekk jox la ko parce que moom nga ko séqal bu ñaareel bi mooy bi nga xamante ni yàlla moo dogal ca azal ni cër sàngam day ci jëmmi sàngam la jëm dogal na ko ca azal dara mënatu koo far ndax bu boobaa jëfal xalam def fal qalam mu ne ñetteel ba nag mooy mag ñi lu ñu baax baax am na ci boo xamante ni du ñu xëy xëy jox la ko bu ñu ko yoree ba liggéey ca lañu leen ca sant def ca lañ ca war a def ba mu jeex ne daañu jóg delluwaat wax ak boroom cër ba mu joxañ leen fu ñu koy teg ñu dem teg ko foofu ba pare nag ne di xool boroom itte yi joyal pour dem fekki cër ba fa mu nekk mu jël cër ba Sëriñ Babacar si gannaaw bi ko ñaari cër yi dikkalee bii jóge ci boroomam subhaanahu wa taala nga xamante ni dogaloon na ko ca azal ne ñaareel ba way juram Seydil Hajj Malik xëy xëy natt ko mu doy li mu doon mu xëy-xëy teg ko ci jëmmam ne ñetteel ba nag ba nga xamante ni moomu ko te seeni boroom a ko moom te dañ koy teg ca fa ñu ko teg dox ba muy dox pour dem fekki cër ba fa mu nekk mu jël ko taawu boobu moom sëriñ Babacar Sy fexe na ba fekki cër ba fa mu nekk jël ko taawul ko boppam moo tax ñu ne ñetti cër yi yépp ci ne mu ngeeg moom mu ni waaye nag bi ëpp solo ci biir mooy baat bi nga xamante ni ci la liggéeyi liggéeyam ba am ko mu di baatu istiqaamat istiqaama amrun ilahi yàlla moo digle ni baatu istiqaama man yàlla may ki ko digle fastaqim kama umir amru la fastaqim kama umir mu tegal la ni laa mooy njub goo xamante ni njub raxul dara nee na njub gu raxul dara inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu fastaqim kama umir wala boog la mu indi ca wala an law istaqaamu ala tariqa la asqaynaahum ma an gadaqan li naftinahum fii amrun ilahiyu c'est un impératif divin yàlla digle ni am na ruq boo xamante ni ku ma fa bëgg a fekk fow mu jaral la ko nga wuti ko te baat ba nga koy wutee nag baatu istiqaama la droiture sëriñ Babacar Sy liggéeyu xilaafaam liggéeyu cëru yàllaam ci baat bii la ko tàmbali parce que mooy baat bi ngay tàmmali njub fastaqim kama umir nee na baat ba ca topp nee na baatu ixlaas ixlaas baatu moom it amrun ilahiyun yàlla moo ko digle wa ma umiru illa li yacbudu llah muxlisina lahu ddin muxlisina lahu ddin mu ne ñaari baat yi bokk na ci baat yi nga xamante ni ñoo gunge sëriñ Babacar Sy bi mu tàmbalee liggéey liggéey bi ko baayam bi jox ay sëriñam jox ko ko te la mu ko wax ni ko lii du lu ma la jox seeni boroom ñoo seet nga doy leen ñu ñëw teg ko ci sa loxo mu indi baatu istiqaama ak ixlaas teg fastaqim kama umir yàlla moo digle na nga na nga ci njub te bu ca jóg nim ko digle itam mu ne la bu fekkee ni cowworlu nga ci njub te jóguloo ca bu ngeen saxe ci njub te jóguleen ca bu ngeen saxee ci njub te jóguleen ca et s'il se maintenait dans la droiture sur le droit chemin je vous abreuverai d'une eau abondante walaw istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan xadaqan linaftinahum fii ñaari baat yooyu sëriñ Babacar si ci la liggéey liggéeyam ne def ko nag mu nekk melo nekk jikko wëlbatiku ne yamu ca mu saxal ko mu nekk constance ci moom te yàlla loolu la digle soyez constant dans la droiture si vous êtes constant dans la droiture man yàlla je vous abreuverai d'une eau abondante kon nag bu nekkul constance duñ ko mën a def nawel kon faw mu constant ci yow nekk amal ala dawaam mu ni itam sëriñ Babacar si ci liggéey boobu nga xamante ni liggéey na ko nee na yii bëggul woon ku ci duut baaraam nee diine lislaam bëggul kenn ku ci fontu ba ni da ciy indi benn critique bu nekkul wala nga ciy duut baaram nee na tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani nee na mësul bëgg ku ca duut baaram nee na ak njabootu Seydi El Hadj Malick mooy ñett yi nga xamante ni daf ko defoon son chassé gardé ba ku ñëw boo ci indi danga ciy indi lu leer waaye doo ca dugal lu ca bokkul boo indee lu ci bokkul rekk mu wan la ni man Babacar may ki ñu ko dénk te danga xam bu baax ni ki ñu ko dénk ngay waxal nee na daawul hésité benn yoon ci yëkkati kàddoom nee na yàlla def ko nag mu nekk mag bokk ci mag ñi waaye nekk mag mu mën a uuf uuf njaboot nee na xamoo nit lu xew ci àdduna moom Cheikh Seydi Aboubacar nee itam ñu may ko déglu lool rawatina autorité coloniale yi fi nekkoon nee waaye nemmeeku woon nañu ci moom ni ku ñewente woon jaamu yàlla yi nga xamante ni ñoo ko doon dikkal ku leen bàyyi woon xel te bàyyi xel ga yamul ci jamono bi muy dund ne bi mu génnee àdduna sax e, wëlbatiku na fa mu nekk ca barzax fa mu nekk nekk ak yàlla ca kaw asamaan mu ngay bàyyi waale xel njaboot googu nga xamante ni ñoom la ko yàlla boole woon te loolu boo demee ci kitaabu tadrib da nga ca ja da ko ca da nga ko ca da ko ca jële ni ñoom yàlla nitu yàlla yooyu liggéey nañu liggéey boo xamante ni yàlla dana dëgg ca liggéey booba may leen bu ñu nekkee ci dund kaw suuf ba keroog ñu dem fekki yàlla mottalee fa seen dund nee na yàlla dana leen may ittewoo gi ñu daan ittewoo seen njaboot ca ba ñuy dund ñu wëlbatiku di leen ko ittewoo ca fa ñu nekk ca barsax mu ni te ittewoo googu ñuy ittewoo seen njaboot ca fa ñu nekk ca barzak ne moo gënoona a moo gënoon wér ca ba ñu nekkee ci dundu kaw adduna lu tax ndax ba ñu nekkee ci dund adduna dañu amoon yen mu nekk yan bu diis nekk seen mission ñuy dem ak ñëw jaam yi loru jaam yi saa su ne ñuy ñëw di ko taataan di ko yóbbul yàlla yàlla di ko defe ñoom nañu ko ko waxee mu defal leen ko parce que yàlla boo fexee ba mérité ba mérité confiance loo ko wax mu defal la ko na nga ko bëggee defe naa sëriñ Babacar nun ñépp ñi mu am ñu di ay njabootam di ay doomi diineem mën nañoo nangu ni kenn ku ne bis ñëw na nga woo yàlla jaarale ko ci jëmmam yàlla wuy si la ca la nga bëgg ca na ko bëgge te fekk na ci moom nga ko jaare ni moo tax bu ñu demee fekki yàlla yan ba ñu leen joxoon yan ba dañ koy yenniku te ku yenniku rek ku yenniku ku yenniku sab yen woyof waral foo ko woowee ba léegi ba fii ñuy waxe sëriñ Habib wax na ko léegi nee léegi laa ko woo diggante bi ñetti minute sax doxu fa mu ñëw wuy ko wuy si boo xamante ni jaaxal na ko fii ñu koy waxtaane amaana am na ñeneen ñu koy waxtaane ci beneen barab ñoom it woo gu ñu ko mu ñëw wuy si leen wuy si bu gaaw a gaaw te loola kattan la bu leen yàlla joxal moo tax mu wax ko mu ni ittewoo gi muy eh, ittewoo gi njabootam ne bi muy dund ba mu génne àdduna la gën a gaaw la gën a wér la gën a sax la gën a yéeme nga woo ko mu fekk si la mu ni kooku bokk na ci cër yi leen yàlla defal mu ni ndax seen dund kaw suuf bi ñu fi nekkee di dund ne booba dañu amoon ay responsabilité di ko doxal mu mën leen a tardeel ci li ñu bëgg a def mu ni waaye ba yenn yenni koo yen ba nag fa ñu toog ca barsax toogee wuñ fa lu dul dégg njaboot bu tawat ñoom ñoo occupé siège ñoo occupé siège ba ba léegi bu ñu taataanee tawat ga dem wax ko yàlla yàlla defal leen ko ni ñu ko bëggee kooku seen cër la yal nañu ko yàlla fayal radiallahu anhu nee nekkoon na kon ku ñeewante njaboot il était un meneur d'hommes très au courant de l'actualité très écouté de l'autorité coloniale mu ni Sëriñ Babacar neena na teel naa xam teel naa xam fi mu jëm moo tax bi mu jógee rekk fa la tegu nee na sëriñ Babacar si ku yàlla defaloon barke bu yaatu la nee na waaye ku yàlla mayoon mu mën a jëflanteek ñépp ngir ubbikoom ci wàllu xalaat ak jëflante nee na sëriñ Babacar si nee na wéralam jubloom yàlla nee na mënoon naa doy sëkk élément bi nga xamante ni moo defar léppam ci digganteem ak boroomam rawatina ci dundam dafa wéraloon jubloom ci yàlla te ku wéral sa jublu ci yàlla yàlla dana fexe ba yow ci sa bopp loo bëgg du tardé nee na sëriñ Babacar si nekkoon na kilifa gu ñu bàyyi xel kilifa gu ñu ormal nee na nekkoon na it kilifa bu ànd ak jamono kilifa boo xamante ni jamono du ko raw mukk parce que sëriñam Seydi Cheikh Ahmed Tijani nee na boo bokkee ci njabootam di doxal jamono raw la rek yow xamal ni danga bo ni ca nga bokk waaye moom lànk na bi seyri zamani kasir nee na moo taxoon ñu nemmiku ci moom mu nekk nit koo xamante ni progressiste la nee na nekkoon nit koo xamante ni réformiste la nee na nekkoon nit koo xamante ni bâtisseur la na xamoon nañu itam ci moom moom Cheikh Seydi Aboubacar si fidélité fidélité ci jamono boo xamante ni am ca fidélité ci yii dafa jafeñ nga taamu sëriñ sëriñ ba nga wëllëranteeg moom ci wàllu yàlla pour nga jëflanteeg moom ànd ak fidélité ba yenn saay dana la jafeñ ñu raar ñoo fidèle ci seeni rapport seen digganteeg seeni sëriñ nee na jamono bii nga xamante ni xaritoo nee ngeen war a séq xarit ga ndax xamuloo lu ko yàlla defee te xarit ga yàlla ba mu koy dogal jiitu na sa gane àdduna ndax démb la woon ci azal ca yow ma alastu bi rabbikum ne fidélité wu ànd ga ak xarit ga nee ci jamono bi ñu néew ñoo fidèle ci seen ànd ak seen waay bu ngeen ko séqee rek yenn saay waraa ngi ñëw nga wor ko nee na sëriñ Si lu ne mën nañ koo wax ci moom ba mu des Babacar si ku ñàkk fidélité la mukk nee na fidélité am dafa feeñ ba bu la gisaan ci dundam nga ñëw indil ko nit mu xame nit kooka bu la gisee balaa def dara la mu lay njëkk laaj mooy ana diw ma nga àndaloon boo ko nuyoo rekk xelam a ngay dem ca kamula gisee loon pour wone ana nit ak na mu war àndeek mbokkam na mu war a àndeek ka mu wëllëranteel na mu war a àndeek ka mu soppanteel ci wàllu yàlla te jamono bii xaw na jafeñ ndax dangay xam fi nit boo demee ca marché ba dellu si ñëw fekk ko mu mel ni kàkkatar te yooyu bokk na ci melokaan yi ñuy nattee yi ñuy natte ak càng ci nit waaw boo dul sang rek mënuloo ko waaye boo ko mënee rek xamal ni boole nañ la ci listu sang ya te yow mi ñu koy wax kat du wayjur yi de parce que ñoom moomuñu ko ñi ko moom mooy nun ñii nga xamante ni ñooy door di tàmbalee soobu ja àdduna ñoom mag ñi moomuñu ko ñii ñoo ko moom nun lay sunu alal nun lay sunu viatique nun lay sunu héritage parce que ñun ñooy ndaw yi nga xamante ni baat bi nu yàlla baat bi nu yàlla firee nee na lu njëkk tey njëkk nee na ndaw li sang la xoolal yaa ngi tàmbali sa dund yeggaguloo fenn yàlla def na la xaat sang baat bi mu la melale baatu sang la ña ca tollu ñépp di ndaw baat boobu la leen melale sami'naahu fatan yuqaalu lahu ibrahim yuzakkirahum bi umuuri diinihim fatan ja fatan ja baat bi boo ko delloo da koy delloo ci futu wëtu al futu wëtu mooy une noblesse chevaleresque kon kañ yow yaa xamul sa bopp waaye kii moom melal la te xam la piir mu di yàlla jox na la yow sa melo muy sa melo original sami'naahu fatan yuqaalu lahu ibrahim ndaw la dégg nañ ñi ndaw la waaye sang la fi mu jëm fi mu jëm fu sori la waaye sang la kon nag doxu sang dana ko war ci yoonam yow ndaw li yow la wax ni en tant que jeune bii melokaan lañ la melale moo xam ngay bu jigéen ba moo xam ngay bu góor ba foo mën a nekk te tudd ndaw rek ndaw lu jigéen léeg lu góor li ku ci nekk ci ñoom ñaar sang nga kon foo nga bàyyi sa bopp xel yow teg nañ la yan sa responsabilité mooy nekk fi nekk fi fas yéene yanu yan yi nekk fi nekk fi défi yi posé ci sa yoon nga fas yéene relever défi yi nekk fi nekk fi taar wi nga xamante ni moo la mën a melal ba sa càng bu ñu la ko waxee mu mën a nekk mbubb mooy sol mu jot la sëkk parce que càng gi bu nekkul mbubb mooy sol mu jot la sëkk jaru ko jaru ko bu ñu la joxe cër te cër ba yow mérité ko jarul ñu di la ko jox moo tax faw nga ànd ci liggéey boobu def nañ la ko nag ki ko moom moo la ko def muy sa borom subhanahu wa taala boo demee ci kaafi loolu la leen wax fidyatun amanu bi rabbihim fa zidnahum hudan wa rabatna ala qulubihim la mu ca teg isqaamu fow nga participer ci melokaan bi boo participer ci melokaan bi mënul nekk ñiikat ndaw lañ yoo xam ne kuréelu ndaw lañu ànd nañu xëy xëy wétti yàlla mu nekk seen àndandoo fi nga taamoo yàlla mu nekk sa àndandoo def na la xaat sang parce que yàlla ku dul sang mënul ànd ak yow boo doyee dee ci melo wala nga doyee di ci jikko wala nga doyee di ci jëfandiku mënul a boole ci ñi mu am nee na ñi may boole ci ñi ma am dañuy doon ay sang fityatun amanu bi rabbihim fa zidnaahum hudan danaa leen dolli man yàlla maa leen di yombalal sama tase ak ñoom bu ma ko xasee def nag ba ñu tase fa zidnaahum hudan wa rabatna ala qulubihim dana leen fexe ba fu ñu daagu ñépp sopp naa فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم may mooñ seen dënn ba lu ñëw mën caa tege ñoom ndaw yooyu nee na melokaan la waaye ne mënuñu koo am fekk participer ci biir liggéey bi te la nga cay participer nag ah mooy jóg nag jóg def yi jéego fekki cër ba fa zidnaahum hudan wa rabatna bi qulubihim ne mënoo koo am lu dul xanaa nga jóg def mujaahada dem fekki cër ba fa mu nekk nga dem nee na bu boobaa boo koy yëkkatee sol ko nee na mu jekk ak yow moo tax mënoo ko am lu dul xanaa nga jóg nag na doon sa itte mu ni la sëriñ Babacar si boroom itte la woon itteem bu kaweem boobu royee ko ci sëriñam nga xamante ni ñi koy melal ba ñu ko melalee dañu wax ni himmam kawe na lool lahu himamun la muntaha li wa himmatuhu suxra ajal min nee na nga gis kon ni moom moom fidélité bokk na ci cër ya nga xamante ni ya ko melal la nee na ñewente njaboot nee na bokk na ci melokaan ya ko melal nee na ormay ci xam yelleef yi nga xamante ni moo war ci moom nee na ku ko meloloon la ndax doo mës a ñëw fekk ko ci barab mu wan la ni am na bëtu xeebeel bu mu lay xeeb ku mu gis rekk ne ñeewent na la ndax ñeewent yàlla bi mu bëgg melal ci yow nee na itam sëriñ Babacar Sy fexe woon na ba lu ne bala koo defit daan na ca sédd ka ca am gis-gis bu rafet mu wax kook yow mu ne kon nitu ouverture la woon c'était un homme de dialogue parce que xam na ni àdduna ku ko bëgg a sottal mënuloo ko sottal te jaaruloo ci dialogue dialogue yàlla moo ko njëkk a digle wane ko mu nekk procédé boo xamante ni ci la jaar lu muy def il est passé par ce procédé de dialogue pour teewal lu mu bëgg a teewal borom bi subhanahu wa taala moo njëkk a dialogué ak malaayika yi wëlbatiku dialogué ak nit ñi wëlbatiku def ko mu nekk procédé boo xamante ni ci lay jaar pour saafara wala prévoir certains conflits ne Serigne Babacar Sy était un homme de dialogue nee ku daan faral di làng ak njabootam di waxante ak ñoom ne Serigne Babacar Sy radiallahu anhu nee na c'était un homme d'ouverture nee ku ubbiku woon la ci jamono ku bàyyi woon xel doxu jamono ku daan faral di soññ njabootam ci mu bañ a tardé ci jamono ci dundam ne loolu moo tax bi Seydil Hadj Malick ñëwee te mu ñëw fekk Maodo mu nekk mystique bu sotti ne dafa ñëw rek ne ah waaw Maodo yoonu doxalinam daf ko jaar par le procédé du mysticisme liggéeyam yépp ci la ko jaar mu ni man nag danaa ca jaar naam waaye am na lu ko bëgg a def boo toogee boo toogee di xaar rek boo moytul nit ñi yàqal la sa liggéey ne loolu moo taxoon naka la Seydi Haj Malik eh, eh, dëddu mu taxaw taxawaayu dëjëm ba yeggal la mu njëkk def rek mooy génn daw ngir wuti àdduna wuti adduna mooy dem pour daan adduna ci melokaan yi nga xamante ni yu yéeme yi mu indi mu fexe daan ko ca nee na Sëriñ Babacar Si nitu consensus la woon nee na itam màggaayam ak darajaam nee na teel nañ koo xam ci moom nee na ouverture am d'esprit am na ak nag mbaax gawoon ci moom nga xamante ni mbaaxa di ñaareelu turam nee na honnêteté bi woon ci moom nee na liggéey na ci moom mu nekk jullit bu ñu mën a seedeel jullit bu sotti mu ni waaye comme pasu jullit yàlla rek mooy ki ko mën a seede moo tax Serigne Cheikh ba ko alsan njaay bu rajo laajee ni ko ndax sëriñ Babacar gëmoon na yàlla mu ni ko wóoruma mu ni ko ngani mu ni ko wóoruma mu ni ko lu tax mu ni ko ndax ngëm yàlla mbiru xol la te koo duggul ca xolam xamuloo fu pas-pasam ci yàlla yegg kon seedeel ko nit tooñ ko la ma ni ko kooku dee xam-xam bu kawe la c'est de la haute science mu ni kon yooyu dana doy rekk ci ñu mën koo jëlaale ci biir jëfandikoom nee na ñu ñëw nag melal ko melokaan boo xamante ni dafay dellu ci ay trem très physique am ay trait physique dafay contribuer dëggal érudition wu nit jëm ci dox bi mu dox jëm ci yàlla danay wax ay mbokk ni leen wëlliyu bu ñaaw fu ngeen ko gis rek xam leen ni bokkul ci wëlliyu yi wëlliyu du ñaaw maanaa rafet ga laneen moo koy def ci moom mooy waral foo ko gis rek bëgg a mel ni moom moo tax très physique dafay la la xaw man naka laa ko mën a tudde la comportemental dafay bokk ci melal doomu aadama mais li nga xamante ni mooy melo yi dafay contribuer pour dëggal cëru yàlla nitu yàlla bu mel ni ngëpp ngëpp kanamu nitu yàlla du mel ni ngëpp bu melee ngëpp rek xamal ni amul cëru yàlla nitu yàlla dafay rafet rafet goo xamante ni ca yàlla lay jóge parce que inna allaha jamilun yuhibbul jamal te li nga dëkkee di ko def mu di mu di mu di jaamu yàlla moom lay yebal mu soppiku di leer goo xamante ni mooy ñëw nu sa nu say cër mel rek moo koy moo koy melal moo tax mu waxoon ni sëriñ kër Si ndeysaan jëmm ja jëm ju yam la guddul ba mu ëpp ndax bu guddee ba mu ëpp ko gis ni xool xoolal ma xoolal ma càkkaa bu balee dem moo tax il était de taille juste dans la moyenne di doomu du ëpp du gàtt ba mu ëpp parce que bu gàttee ba mu ëpp boo gisee ni moo tungu ne mële nag nee melokaanu deram dafa nekkoon un teint uni noir d'ébène waaw timpi tàmpawul magum yàlla day du timpi tàmp boo timpi tàmpa fii ñuul fii xonq maanallah ngay niroog rab boo timpi tàmpa rek rab rab ngay niru maanaam na ñoo xamante ni yàlla bu leen yàlla nattoo bu leen yàlla nattoo ñu timpi tampa dañuy tiitalaate man am na ñoo xam dañ may tiital jëmm yi bu ma ko gisee rek damay tiit parce que day mel ni rab rab waaw un monstre sorti je sais d'où timpi tamba baaxul moo tax moom nag ndeysaan yàllaa ko defaloon il était d'un uni noir de veine waaw xeesul ba mu ëpp ñuulul ba mu ëpp waaye dafa yam rek ba pare nag eh, taay bu maase fii xonqul fii weex fii ñuul fii waaw timpi tampa rek mooy mooy boobu tacheté tacheté timpi tampa baaxul yàlla na nu yàlla musal nee na kon ay traits ay traits yu fin la yu régulier nee na démarche nee na démarche bu normal ay gestam am nee na ay geste yu normal nee na foo ko fekk nee na colkaam moo lay wax ni kii dafa bokk ci aristocrate yu yu kaw asamaan ya colka ga rek mu ni waaye colka ga li muy rafet rafet ba nga tàggaleel ak sa sagoom tàggaleel ak sa sago ba nga foog ni nee na la muy rafet rafet ak la muy ànd ànd nee na mu boole ko jël ay dégradé de vert boole leen parce que bokkoon na ci couleur bi mu gën a bëgg ak weex nee na noonee mu koy boolee léppam boole nee na noona la yàlla ja mel yàlla ja raxul dara Eh, moo ko tax foo ko fekk port vestimentaire am dafa nekk por bu rafet ñi ko gis ñëpp ci photo eh, da nga naan boo ko xamul danga naan kii kan la fow nga laajte ko parce que eh, rien que regard am dans sa photo force le respect da xam ni kii nitu yàlla la kii boroom cëru yàlla la kii nitu kaw asamaan baaxul nee na nee na cër ya cër ya trait caractère physique nee na nga xool ko nee na bakkan ba rëyul ba mu ëpp bu rëyee ba mu ëpp la daloon waaja ba muy xuloog euh, euh, boroom ñaari tur ya ne mu daal di koy xool gis ko ni muy waccax waccaxee rek mu daal di koy xas mu naqari ko nag moom moom ci boppam ne mu jékki-jékki rek ne daldi eh, xool xool lan la ko war a wax xamul lum ko war a wax mu seetlu kanam gi ndeke bakkan bi dafa rëy rëy rëy mu jëkki jékki rek dem ba Grand Dakar comme fa la doon wàcc ci car rapide bi mu ne ko sama càmmiñ dandaleel sa bakkan ma jàll ne waakaar bi yépp xool bakkan waa ji ndeke bakkan bi dafa mel ni ñaari kàpp yoo teg rek rëy ba jéggi dayo sax nee sëriñ Babacar si ay tërëm lépp yam nee foo ko fekk dafay am tenue am retenue ne foo ko fekk dafay sol lu rafet loo xamante ni boo ko gisee danga xam ni kii ci magu yàlla yi la bokk nee na itam foo ko fekk nee na kanam ga dal ga muy dal doo xam ndax kii dafa am lu ko naqari doo xam ndax kii dafa am lu ko neex ngir rekk dal ga muy dal wan la ni mag yàlla ànd nee na xool ba dafay nekk xool bu yiw waaye xool boo xamante ni eh, ku xool bët ya sa bët tegu ca rekk amal ko rus waaw faw nga rus ko nee na mbindinu bëñ ya dafa nekk mbindin wu rafet une belle dentition waaye melul ni sama bëñ yi nga xamante ni bii daa dem màkk bii dem Jérusalem nee na waaw nee na fangewul waaw nee na dentition bu rafet la bu yiw bu rafet nee na loolu moo defoon ci moom nee na njaboot yi sopp ko ngir taar wa taar wa woon ci moom nee njaboot yi dañ ko fonk sopp ko neena te aw taar ci nitu yàlla nee na dana contribuer positivement ci érédiction dana Cheikh Seydi Aboubacar Sy nee mag la woon di boroom dignité nee na spirituelle bi woon ci moom ak tolluwaayu liggéey ba ci wàllu yàlla nee na defoon na ñu xam ci moom ni euh, mag la woon ci mag yàlla yi nee na itam boroom fit la woon ku ñemewoon la ku ñemewoon dëkk dund mu ni parce que mag ñemeem dëkk dund mooy tax mu mën a daan dund te sëriñ Babacar Sy ku ñeme dëkk dund la nee na nag mu liggéey ci wàllu yàlla liggéey boo xamante ni bokk na ci li ko gën a fësal feeñal ko mooy structure yi mu taxawal gannaaw bi fi Seydil Hadj jóge ci biir liggéeyu zawiya tijaniya mu di daayira yi mu di daayira nekk école nekk yoonu doxalin wu mu teg pour lu gën a takke nit ñi le volet social de la confrérie nee na mu liggéeyi ji nee na mu daan ko digle ci dundam nee defoon ko it mu nekk euh, liggéeyukaay ci wàllu diine ak tariqa ak mbokk mu ni waaye itam defoon ko mu nekk procédé boo xamante ni fexe na ba takki ci nit ña pour ñu dundal li nga xamante ni yàlla moo ko digle ci jëflante yi nga séq yow ak sa mbokk yow ak sa soppe yow ak ki nga bokkal sa mbokku taalibe yow ak sa sëriñ nee na mu di ko melale doxinu dayira ñu ni lu dul liggéey bii mën nañoo yam ci waxtaane Serigne Babacar si dayira conceptu dayira ni mu ko indee ak ni mu ko yokkee mu nekk une action contributive ci biir liggéeyu zawiya Seydi El Hadj Malick ci biir liggéeyu zawiya Seydina Cheikh xëy xëy créer structure u dayira ñu ni ko Maodo bàyyiwu ko fi woon mu ni waaw bàyyiwu ko fi woon waaye man maay ki ko sos ñu ni ko ah, innovation la mu ne ah innovation bu dee innovation it kon nañ ko tuddee innovation bu rafet te innovation bu rafetee dañ koy nangu ci diine bidaa xasana kañ yonent bi nee na bépp innovation boo xamante ni bu rafet la dañ koy jàppe xaqiqa ci biir liggéeyu diine ñu critiquer critiquer ba yeggal mënuñu ci dara xam ni liggéey buy sotti la ñu xëy xëy ñëw fekk si ko ci ëttu diine yépp ci réew mi xëy nañu xëy créer ay daayira boo demee ca wàllu murit ya créer nañu daayira nga dem ca wàllu laayeen ya créer nañuy daayira nga dem ca wàllu eh, njaasaan créer nañuy daayira nga dem ca foo dem rekk mujj nañu moo tax Sëriñ Abdul Aziz danay wax ni moom Serigne Babacar si ñi mu nawle diinam yi ko fekk si ci liggéeyu rek ñoom ñëpp waroon nañ koy jox àllarba waaw joxe àllarba te mooy xam ne liggéey bii kat mooy ki ko indi te yokkal na la ko ba nga mën caa dëgg yow it organiser sa bi mu nekk nag ay structure yoo xamante ni ay structure liggéey la nekkul ay structure exploitation wu njaboot moom da koo defoon mu nekk liggéeyukaay exemple ba nga ciy jël benn mbokk dafa ñëw ci moom ni ko ah nun dey dañu bëggoon dayira mu jox ko turu dayira ñu dem mu digal leen la mu leen ci digal ci yoonu doxalin waak nañu war a ànd bokkoo ci diineek tariqa ak nañu war a jàppante nañu war a xajonte nañu war a dimbalante nañu war a kenn ku ne Eh, yoon wa nga xamante ni moo la mën a takke ak sa mbokk ne ba yeggal ñu dellu ndakaaru ne doxal ñetti weer àndandoowaat ñoom ña ko séq ca dayir ba ñëw fekk si ko ca Tiwaawan ñu ko nun de dafa am lu nu fi ñëwoon laaj la ci ndigal nga jox nu ko ba nu ko joxee nag ba ñu demee la nga nu waxoon boobaak léegi ñu ngi koy def waaye dañoo dem ba mu yàgg ñu am lu nu xalaataale ci biir liggéey ba ñu ni kon nag nañ ko ci yokkaale bu ñu demee ziyaari Tiwaawan laajaale ko Cheikh Seydi Aboubacar bu ñu ko confirmer lee ñu continuer mu loolu lan lañu ñu ne ko nun dañoo àndandoo ci suñu liggéeyu dayira kenn ci nun feebar feebaru tuberculose te ñaare feebar buy wàlle bu dalee nit ci péncam wala ci biir mbokkam pénc ma wala mbokk ya dañ koy faral di daw nun nag waa daayira bi dañu ni duñu ko mën a daw ndax noo àndandoo woon ak moom ñëw sukk ci say om nga jox nu turi wi boole waat nu gëneen boole goo xamante ni mooy boole bi gën a wér bi nga nu joxee ndigal la jël ko nag moom loolu dal ko ñuy aayante ci biir daayira bi comme dafay faral di soxlawoo dem hôpital wala dafay faral di soxlawoo jëli garab walla ñu jëndali ko garab ca pharmacie ba wala boog ñu soppil ko ay yéreem wala ñu di ko taxawu ci wàllu lekkam ak dundam ñu di ko aayante nun waa daayira bi xoolal xaat mu ngi koy tuddal politique de solidarité principe de solidarité foofa moom la ko waa ji tuddal ni ko nag loola bañ ko defee yàlla dogalul woon bi ñuy ñëw day bi ñuy ñëw di jël si yére bi nga waxaale nu ko kon bu nu ñëwee war nañ la ko wax bu dee lu baax la nu wéyal ko bu dee lu bon la ñu génn ci bis ni ki tey nee ñu sëñ Babacar si ni tekk ba mu yàgg mu ni ah moom de waay moom de waay ak a neexoon ñépp déggee dayire yéen ni ngeen ko déggee lii ñu xam ni kon génnewu leen ca ak a neexoon ñëpp déggee dayira yéen ni ngeen ko déggee kon xam nga génnewu ko ca te confirmé na ko te bu sañoo nit lu mu gën a méngoo ak doxalin wu rafet ci wàllu doxinu pénc ak li jamonoon indi mu gënal ko tax man danay wax sama mbokki ndaw yi nga xamante ni ñu ngi yore dayira man leen na ngeen jëlaat dayira yi seet yoonu liggéey bu ngeen ci mën a def mu dellu siwaat rajouté ci biir liggéey bi fi mag ñi defoon te booba ak léegi dayira taxawe ko bu mu yam rek ci ñu daje sunu dayira fetta su rey sëriñ Abdul Aziz daf ñu daan wax ni bu ngeen tasee ci dayira yi na ngeen góorgóorlu ba ku déggul woon masala benn ci masail fiqhiya sharciya yi na ko na ko dégg ku déggul woon benn ci masala tariqa na ko dégg ngeen fexe ba li nga xamante ni mooy seen xam-xamu diine ak seen xam-xamu tariqa ak digle mag ñi ci jaar-jaar yu baax yi nu teg ñu fexe xam ko di ko fàttali njaboot kooku mu nekk sunu sunu matuwaay boo xamante ni boobu benn la ca mu ni waaye bu fa yam